ñu dëkk ci quartier ba. Kusum ñoo demandé woon audience di leerlu defal naa ko ñu dëkk démb Dames defal naa ko ñu defal naa ko ñeneen may wax ni tëjuma sama bunt bu kenn dañoo bind demande d'audience mais tontu la na la woon demande bi mu bind na la woon de copie demande bi wala boo ko mu yónni indiwu ko man tëjuma samay bunt ndax defuñu lu ñuy nëbb collectif bonul wante. bu ñu def lépp loo xam ne day dimbali Médina ci année électorale ñu jël xeexu jàmbur bëgg ko xeexee terrain bi. te yaakaar naa ni am na wax yoo xam ni jëm na kaw ah jot naa enregistrement yi dinaa ko teg ci yoon dem ak ñoom ci yoon ñu indi seen i preuve may ñaan kat yi. au lieu ñu continuer yàq nañu seet li ñaaw ci Médina ñu def collectif jëlee ko fa ndax gas terrain bi yàgg naa am ndox ay agresseur ne fa su ñu leen cee dégg xanaa Médina bu naree baax rek laay dégg collectif. bi fi nekkoon pour Assane Diouf dañu leen bii. ma xamal leen ko ma laaj leen Sénégal fan moo am terrain gazon synthétique bu didul fay ku xam na ko wax fan moo am Sénégal gazon synthétique boo xam ni nit a ngi ciy football ca du fay. terrain gazon synthétique yëpp investissement bu ñuy fay xanaa terrain yi Sénégal moom sax chinois yee koy defar. pourquoi Sénégal moom Iba Mar Diop te ñoom yi booy defal nawetaan zone bi di fa di fa Iba Mar te pourtant ñoo ko moom. pourquoi Douta Seck ñun bu buñ ko soxla te réew mee ko moom bu ñu ko soxlaa dañuy fay. pourquoi autoroute à péage bi ñoo ko moom te buñ ci jàllee dañuy fay. dañuy fay tubaab bi mu fayal Sénégal pourquoi aéroport bi ñu moom ko di fay turki bi muy fayal Sénégal parce que PPP la. dem bay tëkkale PAM moom ak Birame année yooyu acte deux la woon ak trois wërsëg bi ñu la ko yàlla tombale te mairie Médina nag gàcce ngaalaama nee nañu soxla woon ci dara lépp lu ci mënti am nañ ko delloo war waa Médina man li ma ci soxaloon kese mooy parce que tey ku wax tey bu ñu arrêté projet bi ASC bu war a fay du ñoon lay fayal. bu ñu waxee ba tey ñu sax ma mer wala keneen mer wala état bi nañu toj stade bi dinaa laaj collectif ndax bu boobaa ku soxlaati fubal dinañ la fayal nga feneen foofu fubalee kon maa ngi ñaan waa Médina ñu bàyyi combat jàmbur yi ñuy porté luy combat Médina nañ ci fàtte politique contrat bi ku ko lii xam ne maire soxlawul dara ci li am lu dul gazon am kon boog nañu positif te yéene Médina jàmm